karakiri tàbbal géej fa yàllaahu day la député yi bañ tribune yéen kaay man moo taxit fépp nan ni ki démb ci président Macky Sall le mandat naan Sall nag daal di raxasu ci projet de loi boo xam ne façon na yéene buñ ca génnee mu sayal assemblée nationale fa yàllaahu Sall daal di raxasu ci bile projet de loi ba daal di set wecc Cheikh Abdou Mbacke Baara Doli ci le regard yéen kaay naan président Macky Sall kat bu ko defoon mu ñaaw ndax ñun député yi dañoo fees dell ki bor dell ma ni tribune naan yemook fu Sall ngaari lam tooro burgé nekkee ci guddi goo xam ne daal setagul président Macky Sall naka la ni du ma def troisième mandat gaayam yi nag tàmbalee fipp ci kawam tàmbalee jëfur ci kawam yéen i kaayib dee média bi naan man la ñu sañul woon tey sañ nañ ko la gaayu président Macky Sall yi ñemewul tey ñeme nañ ko ma ne la la ñu amul woon fitu wax président Macky Sall ña ngi ko koy wax démb ba député Benno yi xoolee xam ne projet de loi bi arrangé wu leen ndax bés buñ ko wotee ñu sayal assemblée nationale ñu tàbbi géej ñoog seeni bor dañu ne gees président Macky Sall ne ko duñ ko wotee Omar Sow ministre conseil bu président Macky ci 24 heures yéen i kaay naan déet mbir yi demeewul noonu opposition bi ci boppam ñooy jaxase xel yi di ko lamberloo tribune yéene kaay naan kon ma ñëw rek ndax seen gaa yi ñeme gi ñu ñeme président Macky Sall nag mën cee ñàkk ñëw député Benno Bokk Yaakaar yi bu ñu amee fitu naan président Macky sàll projet de loi bii du jàll retiré ko daa fekk Macky dafa bàyyi ñetteel bi mandat wala gis nga sàll bu dogaloo ne day gën a toog ci réew mi bii projet dañu koy daal di wote mu doonub loi kenn du ci mën lenn waaye nag tey yoon wi neex na ku nag fas yéene xët rëkk président Macky Sall dem ba nag bennoo bokk yaakaar naan kon yow Sall ngaari lam tooro buur gédé sa projet de loi bii baaxul gënul ci ñun dañoo ami bor daal di koy retiré l'enquête nan man projet de loi ba kay retiré nañ ko deñ na tribune yéen a kaay naan kon taxul nag gaa yi bàyyi Sall ngaari lam tooro buur gédé ministre conseil Abdoul Aziz Diop ma ngay fipp ci kaw président Macky Sall di sayram le peuple quotidien naan ko déet ñàkk ngor ak wor ma dong la fi ministre Abdoul Aziz Diop wane ndax nag ma ngay joxoñ président Macky Sall naan yow kon Mariam Faye Sall bàyyil ay pexe mi nga xam ne yaa ngi koy nangu moom Marième fay Sall ñu lay manipuler di la joxoñ loo fooy jaar yow Sall ngaari nga fay jaar moom Abdoul Aziz Diop mooy wax ba tey ma nga naan far Farba Ngom mënta tari ñetti saar alxuraan yu tegloo jàngul xamul àdduna ba ngoom tax na nga naroon soob Sénégal ci guerre mars 2021 taxoon na nga nar ko soobaat ci beneen guerre juin 2023 yow président Macky Sall yaa ngi janook opposant boo xam ne nërmeel ko du dara waaye fi mu toll nii fitug jàpp Ousmane Sonko sax amoo ko Abdoul Aziz Diop ay wax na ni ma nga naan kon dooma gën demin yow président Macky Sall li gën ci man laa la jox tey jii nag nga may faye daanaka ay wor tribune yéen a kaay naan man Abdoul Aziz Diop day lu mu yekkul président Macky Sall da koo fàtte ma nga naan président Macky Sall daf ko war war askan wi te na bàyyi nag combine yi nga xam ne Sall da koy def jëmale ci ay adversaire am na gal galgal yeeg ñaawteef yi nga xam ne day tere ñenn ñu daal di bokk ci élection réew mi ko dijee naan bu dee Ousmane Sonko la tax ngay wax moom Sonko day léegi léegi yàggatul dees na ko jàpp te dees kaso nag moom Ousmane Sonko le peuple quotidien naan kon Abdoul Aziz Diop yaay workat kay yow yaa sañ a yekk keteme président Macky Sall Abdoul Aziz nag ñàkk nga ngor turbine yéen a kaay naan ko déet da ngeen gisagum lii rek ndax président Macky Sall nag gaa yi faaw ñu say daanuy rab ci kawam lañ mësta gis ma ne la daañu ko gis ci réew mii ci ayu président Macky Sall mi na jeexal na critique yéen a kaay naan man boobu Sall daal ma ngi ca dënnam làq fa nag fa yàq yeggul kan mooy doon candidat bu bennoo bokk yaakaar le point yéen a kaay naan kon kenn gënu ci ay Amadou Ba nag ndax lépp loo xam ne ña ngi koy war ca candidat moom amadu Ba matale na ko Omar Sow APR yëmbal sud nekkit conseiller bu président de la république Macky Sall naan déet candidat ba nuy wut kay ab candidat la boo xam ne dana mën a boole njabootu Benno Bokk Yaakaar candidat la boo xam ne du féewale candidat la boo xam ne dana am doole ak sañ-sañ am base politique boo xam ne ndam li moom dañu koy seen muy ñëw te bus bu ñu yeggee ci élection présidentielle ba dañu koy daal fëgg daal di yegg seeg moom candidat boobee la ñu sàll ngaari lam tooro buur gëne di tànnal te kam ñuy tànnal daal nañ ci ànd moom ndax président Macky Sall bëgg-bëggam mooy Sénégal fi mu ko teg ci wàllu développement ci wàllu jëm kanam mu bañ faa teggiku Souleymane Ndiaye bu s 2 bi nga xam ne ay militant daal ña ngi koy woolu tribune yéene kaay naan man nee na ma ngay déglu di xaar dogalu président Macky Sall l'observateur naan kon xam nga Benno Bokk Yaakaar day leen moo ko nar a tas mooy bëgg-bëgg yi nga xam ne am na ci biir coalition bi ku ci nekk nag bëgg ber daaraam te lii mën na yàqal bu baax coalition bi l'observateur naan man ñàkkub déggoo day mooy doon daanaka xal wi nga xam ne mooy lakk daayug benn Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien naan man beneen candidat ngi nii Aliou Sarr lay wuyoo bokk ca AFP moom Aliou Sarr naan leen ñam leen ma dénk leen ma réew mi xale yi nga xam ne ñi ngi màngaan ci géej gi day daal di tàbbi géej fa yàllaaxu day daal di dakk ci réewum Sénégal ndax nag fépp foo xam ne daanaka dafa jóg ci amut woon ndox danañ fa def ndox fas yéene xale yi nag dugg ci mbay mi dugg ci yeneen projet yoo xam ne la ñuy defi bitim réew day am fii ci réewum Sénégal bañ riigu fi toog Aliou naan sama ay Barça wala Barzak day daal di dakk ci réew mi maa ko wax turbine yéen naan man élection présidentielle yi day xam nga lan moo ko nar a yàq ku nag bëgg doonub candidat lu ëpp fanweer ci candidat daal dina ñuy tubayu taxaw nag samp seenu ndënd ci digg penc bi ni dañoo bëgg jiite réewum Sénégal am na ci ñoo xam ni moom ay farceur lañu daanaka ñooy comédien ci biir lang gi am na ci nag ñoo xam ne dañoo bëgg profitoo ci sénégalais yi bëgg leen jaay doole fu xarti nag seenuk am am sàcc seenuk am am loo xam ni Sénégal moo ko moomal boppam ñu tàbbal seeni gafak bopp am amuk sénégalais yi mujjee doon seenuk am am ñu caxat caxatee alaluk Sénégal gaal def ko seenu moomeel waaye turbine naan man am na ci ay patriote de am na ci ñoo xam ne dara ñoru leen lu dul réewum Sénégal bëgg-bëgg yor réew mi ma ni la dara ñoru leen ci lu dul yor Sénégal joyanti Sénégal def Sénégal gu ñoŋ goo xam ne ëllëg ku ne di nga am ñeent ñëw ci réew mi vox populi li mel ni ku naan kon na wuteeg Sénégal gi nga xam ne ay droit de l'hommiste ña ngay naqarlu bu baax a baax ni ñuy tuñ-tuñalee Aliou Sané bu Y'en a parce que yéene tàbbal kaso ci loo xam ne charte réewam ci boppam moo ko nangul moom Aliou Sané le mandat naan kon wuteeg Sénégal goo xam ne ab député di njiital groupe parlementaire dañ koy tàbbal kaso waaye Yewwi Askan Waa ngay menacé naan nañu bàyyi biram Souleye Diop lu ko mooy làmbaay ñaaw ci réew mi l'évidence yéene kaay naan maan làmbaay kay na mu naree ñaaw ci réew mi sax du ndànk ndax waa ji nga xam ne ab site internet la daal di jiite dafa bëggoon nag tuñ beneen waay di ko jiñ nag lëkkaloom ak ministre des mines Omar Sarr ak yenn marché ministère des mines yoo xam ne prête-nom la ca moom waa ji di Vieux Cissé waa ji di ko naxtaan ba bëggoon yóbbu ci moom daanaka téeméer ci ci millions di ko xamal naan kon immeuble yi nga am Dakar ak feneen waaye tam alal ju fees dell ci sa génn ak immeuble sa lëkkaloo ak ministère des mines lépp laa naan fàng ci presse bi ñëpp xam ko laaj ko daanaka téeméeri million ki suñuy koppar ba vie jagat-jagatee ñaar fukki million ak juróom di ko yóbbul ca la ko division des investigations criminelles ni nii l'évidence naan maan waa ji ma ne la dem na bay woo soxna waa ji dem bay woo directrice générale des mines façon yéena jël opérateur économique bii